ñu ngi ñëw ci téere buñ naan muxtaarul adab fi ashaaril arab muxtaarul adab mooy liñ tànn si wayu arab yi fi ashaaril moo tax mu ne fi ashaaril arab ci wayu arab yi ndax kat boo demee ba ci mujjantal ma xasida bi da nga dégg mu naan lay nit ki kat bu mënul way na dajale ay way loolu lu baax la moo tax waa ji dajale ay woy def ko benn téere way yooyu nag bu si njëkk mooy salahuddin iñ na xasida ba xamante ni salahuddin moo ko way ak bi nga xamante ni kaabu moo ko way saxaaba la woon radiallahu anhu wa ardaahu beneen bi chanfara moo ko way ak bu ñuy wax laamiya ibnu ward tagra'i ak ibnu wannaan yooyu yëpp naam kon ko taalif téere bi mu ngi tudd Souleymane Ndiaye dégg naam te bi Souleymane Ndiaye Cheikh Souleymane Ndiaye moo ko mool dégg mu ngi noonu dégg ndax kat nit ki ma nekkee ne moom mënut way na dajale ay way gir nit ñi mën ko jëriñoo dégg moo tax mais bismillahi rahmaani rahim commencé ko si nga xamante ni ñëpp fa la ñu commencé seen téere yi waaye si yonent bi allahuma salli ala sayyidina muhammad wa sallim laamiyatu salahuddin xalil safadi laamiya bi salahuddin moo ko taalil moo ko taalif moo ko bind xalil as-safadi dégg nga muy jàngale mu ne aljaddu cër aljaddu bil jiddi wal xirmaanu bil kasali fan sobtu sib an qaribin gaayatal amali وشمبروق المعالي في مخايلها بناظر القلب تكفى مؤنة العمل واصبر على كل ما يأتي الزمان به صبر الحسام بكف الدارع البطل لا تمسين على ما فات ذا حزن ولا تظل بما أوتيت ذا جزل فالدهر أقصر من هذا وذا أملا وربما حل بعد الأمن في وجل وجانب الحرص والأتماء تحظى بها بما ترجو من العز والتأييد في عجل واقرأ قناعة لا تبغ بها بدلا فما لها abadan wallahi min badali mi ne aljaddu cër bil jiddi mu ngi ci góor góorlu waaye nag wal xirmaanu xeñ bil kasali mu ngi ci tayal nee cër baa kay bëggee am mu ngi xaju fa góor góorlu waaye nag ñàkk cër mu ngi xaju fa fa tayal nit ki bu bëggee am cër góor góorlu ndax góor góorlu mooy maye lépp boo bëggee am cër dangay nangoo góor góorlu nangoo sonn boo ko defee am sag mbébét waaye boo bëggee am kawe nga ne duma góorlu yow kenn du la séentoo kawe boo waaye nag ki nga xamante ni ñàkk nañ ko nar nañ ko xeñ cër kooku ci kasal lay nekk mooy tayal kon moo tax mi ne al jiddu cër mu ngi si góor jaddu cër mu ngi si góor góorlu mu ngi boo bëggee am cër bu kawe danga day ànd ak góorgóorlu nangoo sonn nangoo muñ waaye nag xeñ mu ngi ànd ak tayal tayal moo lay yóbbee si nga yokkat boo yokkatee ñàkk lépp mi ne nag comme que cër boo ko bëggee am da ngay góor-góorlu te tayalkat mooy indi lépp li lee mi ne la kon nag fan sob sonnal tusip danga jot am qaribin ginnaaw lu jege gaayatal amali sa doytal waay mébét nee na la nag kon sonnal kon ko wax naa la qualité yi yëpp kon nag sonnal boo sonnee balaa yàgg dinga nga jot la ngi lépp sa doytaluwaay mbébét da nga ko yegg lépp lu loroon mbébét boo góorgóorloo sonn di ko am balaa yàgg waaye nag boo góorgóorluwut nangoo sonn dangay ngay yàgg rek waaye doog am ndax nit ki bu bëggee am wilaaya nanguwut sonn du am dara nit ki bu bëggee bokk ci jaam yi yàlla tànn te góor góorgóorluwut nangoo sonn kooku yaakaare wuñ ko fa waaye tamit bu bëggee am si àddina te góorgóorlu du ko am wala bu ko amee timit du nekk lañ koy nawloo li lay lañ koy xeebee rek lay nekk bu nekkee ne bëgg naa am alal te nanguwut liggéey kooku de séntu wuñ si moom am alal waaye nag bu ko amee du amee fañ koy newee fañ fañ koy xeebee rek la koy amee moo tax mi la kon nag sonnal boo sonnee muñ da jot sa doytaluwaay mébét ci lu jege balaa yàgg danga am mi ne son sentul buruqal maali melxati yaa ay kawela fi maxaayiniha si njortu kaayam bi naadiril qalbi sifatu xol tuk fa dañ la fegal munatal amali coonaab liggéey nee kawe yi kawe mooy booy wut kawe wutee ko fa nga ko njottee ne fa nga ko mën a amee waaye di njotu kawe di di wut kawe dem fi nga xamante ni jege wut ak jege kawe loolu doo fa a am kawe misaal rek nit ki mu bëggee na day wut xam-xam dem sa marché ba kooku mu ngi euh, wut li nga xamante ni foofu du palaasam kooku lan lan lañ gën a jege si moom mooy lan mooy am alal waaye du am xam-xam kon mbir ma nekk teg ko palaasam wut xam-xam sa daara ja lañ ko xamee demal daara ja waaye nag boo bëggee am xam-xam nga ne sa marché ba nga koy amee kooku alal lañ gën a moom kaa xam moo tax mi ne booy séntu kaay ko fa njottukaayam booy wut alal fa lañ xamee sa marché ba kon demal marché ba waaye nag bul naan si daara ji laa la laaja wuti alal commerce yi déedéet <coughs> daara ja jàng lañ fa xam boo fa demee ne pour jàng séntu nañ fa am xam-xam waaye nag boo ko demee pour wuti commerce boobaa xam-xam lañ gën a wutu lañ gën a yaakaar si yow pas alal pas commerce duñu wax pas alal ndax xam-xam boo ko amee lépp fekk si bi naadiril qalbi nag waaye nag nang ko xool si bëtu xol tug fa dañ la fekkelee mën a tal amali coonaab liggéey nee na nag waaye nag booy wut kawe na nga ko xool sa bëtu xol na nga xool xool ba xam ne fii kat moom fa demee daa am kawe waaye diwa ma neex kii ma neex xaar ma dem boo demee yow da ngay demee ngir sa kii dama kaa bëgg wala wala dama dama dama kaa naam nangam amaana doog am waaye nag da nga xool ba xam ni fii kat moo fa demee am ndàngam dama koy am bul tekki dara def dara da am da xool sa bët ba nga xamante lii moo fa demee am résultat te baax na ma dem waaye nag boo xool déw ma neex kii ma neex lii laa bëgg fii laa bëgg nga dem xool yow fi nga xamante ni yaakaar yaakaare nga fa am kawe eh. nga dem boo ko defee de dañ la musal conaan liggéey conaan liggéey mooy liggéey ba sonn te doo am dara mi ne wax biir nanga muñ ala kulli maa si lépp li nga xamante ni yati dan dikkee ak zamaanu jamono bii si moom na muñ si lépp li nga xamante jamono indi na la ko dégg lépp li nga xamante ni jamono indil na la ko rek nang ko muñ moo xam coono la moo xam bànneex la walla naqar la nang ko muñ ndax yonent bi nee bu leen saaga jamono ndax yàllaay jamono dégg moo tax mi la lépp li nga ni jamono te teg na la ko rek na nga ànd ak muñ moo tax mi ne wasbir na nga muñ ala kulli ma si lépp li nga xamante ni yati indi na ko bii si moom wala dikkee na ko azamaanu jamono bii si wala nga yati indi na ko bii si moom azamaanu jamono comme kan sabral xusaami comme muñ ak jaase bi kaffi daarii eh, si tënqëb aji sol mubam koŋ albatali kay jàmbar na nga muñee jaase ni mi si bu nekkee si tënk ab jàmbaar du waxut la jaasi jaay muy waaye nii borom jaasi gi di muñee na nga muñee noonu borom jaasi du daw borom jaasi dëgg mooy jàmbaar dëgg bu téye jaasi si xare du daw kanam rek la jëm waaye du daw nii kooku di muñee na nga ko muñee noonu si mbëb mi jamono yi ne laa tum si yenn bul gont za xasanin di borom ak njàqare wala nga ne za xasanin waaw mooy mu ngi jéeko si xusnu di borom ak njàqare ala ma fata si weesu si lu weesu lu weesu bul si bul si nekk di xalaat di si jàq ndax li weesu yàllaa ko yàllaa dogaloon ne dog am ndax waa alam anna ma axtaaka lam yakun li yusibaka yonent baa ko wax lépp lu la may nekku ne dalaa waroon a dal lépp loo amu tamit nekku ne danga danga ka waroon a am moo tax moo tax nee na lépp li nga xamante ni amoo ko bu si nekk di xalaat di njàq da xam ne waroon ko am te nga lan góorgóorlu moo tax dañuy wax ne li la xas weesu bàyyee ko te nga xam ne yàlla dogaloon ne doo ko am waaye li teew jëfal lii ñëw bàyyi ko ak yàlla ndax yàlla yàlla la boo si tiitee si lii bu nekkee bànneex la yaa ngi sonal sa bopp yaa ngi tiit sa bànneex bu nekkee naqar la yaa ngi tiit tey di sonal sa sa bopp ak naqar bi bu ñëwee tamit mu nekk ñaari métti dégg mi ne wala tadalla bul yendu jazalin di borom ak mbette wala ah, di borom ak bi ma utite si li la yàlla jox li la yàlla jox bu si nekk di kontaan di puugaréew di si jaay gaay di si jaay maa leen maa gën ak yooyu déedéet ndax amaana yàlla jël ko mujjee ko jox la ko ko jël ko si yow jox ko keneen moo tax lépp lu la yàlla jox sante yàlla ta jaamu si yàlla ta te nga def ko li tax mu jox la ko te mooy dimbale si jaamu yàlla yi bu nekkee li ñuy dimbale jaamu yàlla yi bu nekkee alal la dimbale si néew néew ju doole yi boo ko jaayee di ko jaay maana ëpp alal amaana ëllëg jamono yë yëkkati ko suufee la de ba nga ba nga ba ngay mujjee raam sa gannaaw bu nekkee xam-xam la bul jaay kenn maa la ko ëppale jàppal ne yàlla mooy joxe te jox na la ko waaye bu ko pogale wu si keneen dégg kon lépp lu la yàlla jox bu ci pogareew bu ci pogareew ndax boo ko pogarewoo si kenn amaana yàlla nangu ko si yow jox la ko te bu ko joxe ah, yow ma ndax langay ngay wax dégg nee na la kon li li li nga xamante ni weesu na bu si nekk di tiit waaye tamit li nga xamante ni yàlla jox na la ko bu si nekk di pogorewu ndax fa dëhru jamono ak soru moo gën a gàtt min haza si saxak njàqare waza ak saxak min haza si saxak ak saxak njàqare amalan si mbébét ndax kat euh, jamono moo gën a gàtt sax ñàkk rek euh, kontante ndax euh, amaana bu mbégte mi ñëwee du yàgg mën na ñëw léegi-léegi demaat mu des naqar waaye bu nekkee naqar la tamit bu si nekk di di tiit ndax amaana du yàgg mu dem bànneex ñëw moo tax bépp bëla bëla si yàlla teg bu nekkee naqar la na nga na nga ko muñ yàlla di dimbale la bu nekkee ba bànneex la na nga si sant yàlla dégg mi ne euh, wa rubbama xalla amaana mu wàcc baadul amni lenn si kolite yi fi fi wajalin si njàqare ndax amaana bànneex di ñëw di ànd ak njàqare mooy luy la xadis bi wax wa annal faraja ma al karab yar yar yar mu ngi ànd ak njàqare amaana yàlla di la jox bànneex fekk njàqare la koy jaa jaarale kon loolu yëpp bu si ànd ak njàqare gu yàgg waaye na nga muñ rek boo muñee yàlla defar la yër yër yër mi ne wa jaanib na nga teet alxirsa xiir alxirsa xiir wal atmaaw ak séeneen tuxza dañ la ca ca cëralee bi maa laa xamante ni tarju da nga ko yaakaar min al izzi si teddaange wa ta'yid ak dëgëral fii ajalin si lu gaaw nee na nanga teet xiir xiir mooy tajaawuzul xadd fi ma tafal mooy nga jig dayo li ngay def li nga xamante ni attanoo ko bu nekkee nag li ngay def attan nga ko am amul dara amul dara waaye nag bu nekkee ne attanoo ko yow da ngay ëppal di dem boobaa loolu mooy xiir te xiir du la jëmee lu may si lor la waaye nag xiir si la li li nga xamante ni dalay jëriñ loolu baax na ndax nee nañ waxris ala ma yanfauka wasta yonent bi moo ko wax ne waxris ala ma yanfauka wastaiz billah wala taajaz wa in asaabaka shayun falaa taqul law anni faaltu kaza la kaana kaza walakin qul qadara allahi wa ma shaa faal nee na da nga xiir si lépp li nga xamante ni dégg yonent bi nee na na nga xiir si lépp li nga xamante ni dalay jëriñ waaye nag na nga dimbali ko yàlla bul lot bu bul wax ne mënuma lii te lépp lu la dal bul wax ne pourtant nag boo ma defa defoon nanga mu nekkee ni de bu ma defatoon nii du du mujjee mel nii de waaye nanga wax ne euh, yàlla dogal na te lu ko neex lay lay def euh, walakin qul qaddara allahu wa ma shaa faal dégg kon muy noon lépp li nga xamante ni da dalay jëriñ nang si xiir def si sa yitte te nga sonn si boo ko defee yàlla may na ndam lépp yàlla dogal yow bul si tiit ndax euh, jéem nga def nga effort li bon kay mooy bañ a def effort waaye yow jéem nga yàlla dogal jaam ak pexeem yàlla ak am yàlla dogal na ne doo am yow jaaraam waay ki na ndax def nga li nga war a def te mooy jéem bul nekk foofu naan pourtant nag bu demee woon nii ma demee nii de waxal ne yàlla dogal na te lu yàlla lu ko nekk lay dogal dégg te boo teetee xiir waaye nag waxuñ la si xiir bu lay jëriñ di séeneen yooyu yëpp boo ko bàyyee da nga da am cër bi nga xam xamante ne ni sax woon ko si tedd ndax doo yaakaar kenn doo wéeru si kenn da ngay demal sa bopp yaakaar yàlla kese dëgëral sa bopp yaakaar yàlla loolu yëpp boo ko nekkee balaa yàgg daja cër li nga xamante ni yaakaaroo woon ko si lu gaaw ñu ne waq na na nga doylu waq na na nga taqu alqanaata doylu na nga taqoog doylu doylu mooy li nga li la yàlla wërsëg nga doylu si li keneen am ta nga gërëm loo ko ta nga yéene ko ko ndax seeneen baaxut seeneen mooy di séntu mayëb nit ñi loolu du du def lu may delloo la ginnaaw te bu yàggee xañaan la leen mujjee jural te képp kii xañaan day ak yàlla ndax day bëgg euh, euh, fàq may yàlla yi may yàlla yi yàlla def si jaam bi lay bëgg génne ne yàlla lu tax nga may kii def nangam déedéet loolu bu yàggee xañaan la lay indil te xañaan baaxut moo tax euh, doylu na nga ko taqoog mu nekk sa yére foo jëm ànd ak moom bu ko mës simmi nga nekk yére bi ba nga xamante ni dafay taqoog sa yaram nekk sa jikko ndax doylu boo ko defee kenn du la yab kenn du la xeeb waaye tamit doo nekk ko xañaan ñëpp ngay bëgg ñëpp ngay yemale mais tamit ñëpp lay bëgg ndax kat doylu boo ko defee doo doo daw si gannaaw kenn doo yaakaar kenn mais tamit doo nekk di xelaat suba ak ëllëg déedéet yow li li la yàlla jox ngay nekk te doylu kat boo defee ñépp lay ànd bëgg ndax doylu mooy nga dëggu li nit ñi am nga wan ko gannaaw te loolu boo ko defee nit ñëpp lay ànd bëgg ndax waaja bam ñëw ñëwee sa yonent bi ne ko tegtal ma li nga xamante ni boo ma ko defee yàlla bëgg ma nit ñi bëgg ma mooy lan benn dëggul àddina bàyyil àddina ñaareel ba mi ne ko fi ma inda naas li nekk si nit ñi bàyyi leen ko mooy doylu li nekk si nit ñi ta nga leen ko boo ko defee nit ñi bëgg la kon doylu boo ko defee laa chaque ne nit ñi da da dañ la bëgg te yàlla la bëgg ndax booy doyloo doo keneen doo leneen yow li la yàlla jox doy doy doy na la waaye nag boo doylu wut di topp si ginnaaw nit ñi di leen xool di xañaan bu yàggee xañaan la lay indil te nit ñi du duñ la bëgg te bu xañaan nekkee si yoon nekk si feebar yàlla mujjee la nga mujjee nekk noonu noonu yàlla ndax mujj gi da ngay nekk ki nga xamante ni da ger ak yàlla mu ne laa tabari bul sàkku biha si moom doylu badalan benn wecci na nga na nga taxaw doylu te bu bu ko remplacer ak lenn lépp loo munti am bu ko remplacer ak doylu ndax doylu mooy li nga xam xamante ni moo la mën a jëriñ boo ko defee yàlla bëgg la nit bëgg la mi ne famaa lahaa déddi ñeel doylu abadan ba faw wallahi maa ngi gën si yàlla min badalan si benn wecce nee na euh, doy lu amut lenn loo loo ko loo ko mën a remplacer lépp loo lii rek lépp loo ko tëkkalee rek doy lu moo doole moo tax mi ne la na nga doylu doylu amut lenn lu ko feree kaw moo tax mi ne ko waqnaa alqanaata biha badala fama laha abadan wallahi min badali إن أريد الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته